chers internet yu enquête dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé koog l'observateur mu ubbi xët ba yaatu dalal Moustapha Diop yéenekaay bi waxtaan ak moom lu yàgg ci juróom-ñetti at yi nga xamante ni def na ko ci biir gouvernement bi moom maire bu Louga Moustapha Diop desuwaat ci jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom la gouvernement bi am rawatina ci politique industrielle dëkk bi milliards yi ñu jëloon def ko ci yenn étape bi ngir Sénégal gi mën a avancé direct news moom def taxaw seetlu ci semence bi nga xamante ni fi mu toll nii bu ñuy xool dafa manqué qualité loolu yéen kaay bi taxaw ci seetlu nag depuis ne bu ñuy xool suñu semence bi donte am na ay béykat yu muy dimbale waaye nag qualité bi dafa des lool et pourtant yéen ak état moo nekkoon ñuy fexe di am lu tolloog 120 at mu yàlla sàkk waaye boobu léegi France daani xëddeem ñoom béykat yi li ñuy gën di a fréquenté rek ñoom bukkee moo di ci luuma yi pour mën a am dara lu ñu def seen poos yéenekaay bi ne jafe-jafe yi kay nekkul rek ci mbay mi rek même ci biir école bii tamit booy xool ba ñu ubbee classe yi ba léegi si am na école yoo xamante ni mënuñoo jàng yéenekaay bi ne lii moo tax waa G20 di alerté tey menacé ne bu nu moytul danañ jëm ci ay grève ndaxte lu tolloog 280 école mënuñoo jàng jamono yooyu yëpp a indoon ne fi mu toll nii la tribune yéenekaay moom def taxaw seetlu ci ñu pétrole gi ak gaz bi nga xamante ni Sénégal ñu ngi signé ay contrat d'exploitation te nag ba léegi si ni leeral luñ ko askan bi yéenekaay bi ne en tout moom bari na lool Ousmane Sonko wax ak lu Abdou Karim Fofana wax ba ci li Thierno Alassane Sall wax ñoom ñi ñëpp kenn bokku sek sa morom position waaye en tout cas coowal contrat suñu pétrole yi moom war nañ ko leeral te bu ñu ko leeralu nag ba exploitation yi daal di Sénégal gi dong nag moo ci mujjee perte Les Échos yéeni kaay moom def taxaw seetlu si budget Sénégal gi nga xam ne boo moytuwul waxuma la danañ ko yokk sax waaye bu ñu demee ci assemblée nationale danañ am problème lool yéeni yokk nañ ci lu tolloog 3 milliards te noonu la fa demee ci conseil réew bu dee ne bor bi Sénégal yor rek yéenekaay mu ngi xamal ne yokku nañ ci lu tolloog 114 milliards lii di fi ne ne budget Sénégal gi yokku na lool en ci wàllu politique moom secrétaire exécutif bu APR yéenekaay mu ngi xamal ne dajee nañu waaye ba tey ji président Macky Sall jàkkaarloo ñoom dëggal candidature ci élection présidentielle yi ñu jëm yéenekaay bi na ca waxtaan ba dañoo encouragé président Macky ngir mu poser candidature ci candidature am bokk ci biir APR dañuy tànn koo xam ne mooy nekk suñuy candidat yéenekaay bi ñu xamal ne fi mu nii de coow laag na kurce biir secrétariat exécutif bu APR lii quotidien ne coowal sàcc ak fréquence ba nekkoon ci diggante 2STV ak TFM yéenekaay bi ñu xamal ne ba léegi si coow li seddagul ndax njaganduur nit ki démb lañ ko mujjee convoqué arrêté ko ba noppi nag daat koy libéré yéenekaay bi di xam la ne boo bëggee campagne moo xam opposition comme pouvoir yéenekaay bi ne bu dee Sonko mu ngi ca terrain ba te bu dee Macky mu ngi waajal jublu ci terrain bi yéenekaay bi dalal benn analyste politique muy wax ci diggante président Macky Sall Sonko mii seen ñàkk jubóo gi la yem lii nag moo jar a Vox Populi ne en tout cas daal Jamra moom tànki jàmm la ci bëgg a dugal maanaam def médiation ci diggante président Ousmane Sonko ak président Macky Sall primature ndax booy xool Amadou Mame Diop nar nañ ko natal lu ëpp 20 milliards Amadou Ba bi ñu nar ko votal lu ëpp 29 milliards Idrissa Seck ñu nar ko votal lu ëpp 7 lii di wane ne ci état bu Sénégal kuréel yi ko wër yépp nag fi mu nii seen budget yokku na la libération yéeni kaay moom nettali mbir bu doy waar bu am ci diwaanu Kaolack benn xale bu jigéen boo xamante ni dañ koo sàcc sàkk xamal ne xale bu jigéen bi mu ngi wuyoo ci ñoo ko sàcc yóbbu ko ci àll ba séeg moom ba noppi daal di jël bakkanam en tout cas bu nu sukkandikoo ci yéenekaay bu ñu xamal ni ci benn àll lañu sànni kooram waaye ba nu ko gisee yaramam bi yépp laa la wax ay gaañu-gaañu la am jamono ji nag yóbbu nañ koor bi Dakar ngir mën a def autopsie bi waaye ak lu ci mënti xew rayaate gi bëri na lool ci biir dëkk bi ah sécurité bi da war nañ ko yokk xale bu ndaw boo xam ne amul lu du fukki at ak juróom-ñaar ñu jàpp la sàkku la rey la ba noppi sànni la ah nañ doog di seetaan dëkk de la Sénégal toll ñeen doog jàmm mbokk yi ba subaak jàmm incha allah